I accident yaa ngay woy di am foofee ca diwaanu Matam ginnaaw bi nga xamante ne président Macky Sall actuellement ma ngi fay amal ab tournée jàppale na nag ca tournée boobulee amatina benn waay boo xamante ne ni ñàkk na bakkanam ca tournée yooyu lee waa jooju nag ñu ngi xamal ne sax nag ca benn bokk yaakaar la bokk ginnaaw bi nga xamante ne journaliste bi di Gaston Massali mu ngi xamal ne na accident ba demee ginnaaw bi nga xamante ne waa jooju lee ma nga don lang ci oto yi nga xamantene bokkon ci ñu don gungé président Macky Sall ci tourné bobu muy def ci lang bobu nak ci la daal di daanu ab oto bo xamantene mu ngi don daw xel nekkon ci gannaaw mu mu ñew daal di jaar ci kaw bobba ba waa jooju fa daal di sedd guye ba tey ci biir loolu amna ño xamantene xamante nga don dox ñom sax nak accident ba laal na len ba jot leen yóbbu ci hôpital bi nga xamantene ne mo nekk foofee janeiro